yàlla sunu yaay ji xewi na yal na xewal waaye lima lima xewi dafa metti xewi na sama yaay ji moom xewi na xewi na bu dee di doomu yoon yàlla bu mu la jàppale parce que yaa ma waxuma la lu ñaaw waxuma la bon du ma la jàppale faatu xew bi nag dina a xewi faatu ay faatu law ba xewi na waaye xewe bu dee doomu tuulaat doomu yoon yàlla boo xewaat yéen ma kenn ma sali sanwe papa ni ma sali sanwe nga bëgg maa kenn bañu la kenn bëggu yaa fexe ba xewi xewi moom xew da koy yaa sagat ba xewi ay waay faatu xewi na waay law bee bu tani jaayal ay fer bu dee lawbe nga jaayal ay fer loo ciy bañ bañ nga tani ba tani kat yi mer jaay leen kenn bëggul sa montur kenn bëggul a say lam fer nga xam jaayal ay fer ay waay faatu xewi na waaye wala sax di naa di jaay goowe wala nga jaay goowe wala diggi ja wala diggi ja wala dafa am gu du mag gi ak gewe gi ñi la bëggoon ñëpp bàyyi leen la parce que Fatou yaan ñaanuma yàlla di la mi seetloo parce que yaa ma tooñ dama doon kaf rek man waxi dox laay wax nga ko dëgg ay Fatou xëy na waaye kenn bañu la Fatou yaa ma attaqué te Sénégal yi dañu bëgg ay waay faa xeewi na waaye yaa tàngat sa xol nga xam ne sama xol dafa sari saa nga tooñ ma ay waay faa xeewi na waaye aw ma montre moo la jox aw ma lan moo la jox yaa fexe ba xeewi ban xol ñi xew la ñuy jox seen i xol ba nga xewee la la xol yi jeex faatu kenn du la joxati xolam ay waay faa xewi na waaye. ah yow bu koy xewi yaa fexe ba xew ba nga bëgg ma ko attaqué ay waay faa xewi na waaye. ban xol ñi xew ñi lañuy jox seen xol boo xewee ni yàq ni foo kër ni mu ci xewee ay waay faa xewi na waaye. ay waay li xew di jaay